président Ousmane Sonko lu may seet lay doon ak lu may gis lay doon yàlla moo ma wan mbiram te loolu du ma ci ndamu du ma ci fëgg sama dënn waaye président Ousmane Sonko moo tax bu may toog fii naan leen am na ndam ñu bari wax naa leen ko wala ma toog na leen yàq nañ ay këyitam nañ ko tëj dix ans nañ ko tëj vingt ans boo xamul sëñ Mara lu muy wax danga naan sëñ maara moom lu muy wax ci président Ousmane Sonko ah ku ñu tëj hmm, euh, ñii naan dana bokk ak ñii naan du bokk. sëñ Mara moom chaque jour mi nga naan nangam. li ñu jaaxal ci wax ji sëñ Mara. Mhm. mooy vraiment discours bi nga ñu tenir démb Ousmane Sonko même discours bi la ñu tenir c'est-à-dire que un peu moo tax ñu xaw a jaaxle. waaw ci ne euh, information la buy jógee ci Ousmane Sonko directement. wala lu seet ah, man de amaguma man de amaguma visite. te xam naa ne it euh, kenn lu jege Sonko moom di ma wax li Sonko nar waaye dama ne leen loolu am na lu ko gën a jafe tey bu ma yàlla dogaloon may gis ci Sonko rek. waaye man ba ci état bi luñ nas yàlla dama koy wan état bi nga xam ne bu ñuy fexe ngir jàpp ko dama dañ ma koy wan bu Sonko nag déggoo li ma la wax maanaam nit ki boo yoree ceet gu wér ak di seet mbir ak di xam loolu sa bu dee dëgg la ci yow yàlla daf lay ñiital mbiram ba noppi nga yor ceet gu wér man loolu bi mu génnee wax ko euh, nit ñi ku ne wooma nit ñi di wax waaw di xanaa nangam yow de yàgg Sonko nii man di leen man maa ñaan loolu yàlla te yàlla may na ma ko président Ousmane Sonko lépp lu ma bëgg a gis ci moom gis ko kon nag tey boo ñëwee toog fii na ma ma xam euh, déet amaguma visite bi waaye man dur na ma ne yeneen yu gën a neex a gi ñëwaat te patriote yi insha allahu rabbi waañ leen ñu campagne saa borom ñu may ndam. parce que dañu dégg Sonko ci biir xam mu mel ni kuy wax li nga xamante ne bii mooy la sëñ Mara waxoon ne ñëpp xamoon nañ ne. waaw Ousmane Sonko du jàll mais projet bi dina jàll. waaw xam nga tey suñu waxtaan bu mujj dama ko wax ñëpp suñu mbokk patriotes yi ma leen ci gën a niil ci àdduna di jàngok seet boo ñëwee na ko Ousmane Sonko ci élection yii mu jëm du ci bokk moom xam na ko waaye dama ne leen woon ñaar la moom la Sonko wax démb wax dëgg yàlla nag président nga nga nga nga nga mayati ñu ndam waaw gaa yi naan neex a faral dimanche waaye yow neex a àndal campagne neex a àndal politique mooy président Ousmane Sonko. yaay ki neex a àndal di politique ndax ba nga génnee daat ne amuñu pala A B G ñun kese bu ñu génnoon wax ko du doy waaye démb da ngaa firndeel nañu lii ngeen di wax continuer leen ko waaye nag affaire bi la ma daan wax nga ñëw on s'est beaucoup battu pour un projet te projet boobu mooy sauver le Sénégal dama leen ko daan dund ci jotaay yu bari dima naan. on veut beaucoup bâtir pour un projet boobu maa ngi am lu may wax mhm. waaye duma ma bëgg a wax lépp ndax dama nekk ci wurndal boo xam ne ñu ci bari dañ may suivre te aw ma droit def erreur ci sama communication jëm ci côté boobu moo tax damay sécuriser samay mbir sécuriser dafa xew ba insha allahu rabbi dañoo war a sécuriser vote yi d'accord fi mu ne wàllum sécuriser ci la toll moo tax ma ne ko euh, am li di ko def ñeman ñi man bu dee politique dañ leen koo dàq loolu mu gën ci man ba tamit ma ma ñëwaat ci waay wi ci ngaaka daan ne yor vélo bëgg a course ak oto yaa ngi dégg waay wi yor vélo bëgg course ak oto xam nga loolu lu muy firi mooy yow xanaa doo déglu doo déglu sama waa ji ni mu waaw ñun dañoo yor dañoo ñoom ba noppi bëgg a course ak oto d'accord waaye bu dee politique. Hmm. dañ leen koo dàq fuuf. mu ana yéen loolu lu ngeen ci man est-ce que waa ji démb na ne moo leen dàq politique. d'accord waaye nag damaa bañ a dugg ca biir waay wa. daal na soxor. ah bon. iñaan waaye bu ngeen bàyyiwul siisu. wallaahi bu ngeen dee. nangu leen ndogal gi. donc waaye fa donc da nga jàpp ne euh, <laughs> fi mu nekk ni dèjà yow sëñ Mara da nga teel a jubilé ndam sa xel dafa teel a dal ci euh, ci euh, Ousmane Sonko parce que bërki dëmb rek ñëw naa fi nga wax ne tey laa gis tey laa gën a gis Sonko ci palais bi cest à sa xel dafa dal dafa gën a dal bi Ousmane Sonko dama dama ne la woon président Ousmane Sonko am na ndam ñu bari dañ may seetaan na waa sëñ Mara moom li tax mu ne président am na ndam te président Sonko mi ngi ci kaso bi li ma yëgeku si ñëw li ma xam ku ko ci gisoon da ngay jóg pàkkar ñi jóg leen jëli carte yi te ngeen déglu président Ousmane Sonko wallahi am ngeen ndam te procès bi dama ne leen waxoon lu yàgg laa leen ko waxoon yàlla bind mënoo fexe ba procès bi yegg. li ngay gis bu ko patriote yi yëgoon. bu ko yëgoon dañuy woote tànn biir fecc. ça veut dire gis nga ndam ba pare. Hmm. loolu nga ñu bëgg a wax. ndam dama la waxoon na la. waaw ndamal président Ousmane Sonko. Hmm. wala ak toroxam képp ku koy xaar doo ko fi fekk wax naa ko bu yàgg waaye dama ne la man dinaa tayle sama bopp maa ko waxoon de mhm. ne leen am na loo xam ne après deux mille vingt quatre insha allahu rabbi laa koy wax dinaa tayle sama bopp ngir président Ousmane Sonko xam nga mooy lan mooy est que xam nga ne danaa sàcc wax ko fii seex Bara Ndiaye waaw bokkoon na ci yëkk xam ne dañuy gàllankoor candidature président Ousmane Sonko. ah bon waaw. waaye dañu woon ngoram mayu ko mu koy wax. dañ ñu ko jogoo woon lool. waaye la ko wokk xam nga lu tax mu xurima te maa ngi lay giñal ci yonent yàlla Muhammad woowante wun ci yëgoo wun ci musuñoo wax lu ci jëm man ak moom barke alxuraan nga xam ne moom fa mu jàppoon di encouragé ma jàpp fa di encouragé waaye ku xamul xam nga looy foog mm. da nga naan ah ñii ne woon président fekk yow li ma leen doon wax keroog moom laa leen di répété laat koo ne doo sa maam mu mer yaa tooge sa jataayu maam ma ñëw déela na la doo sa maam de moo tax ma ne la nit ki mën naa falu waaye nit ki ki ko fal moom tamu falu kooku lan la ki fal président lan la sëñ Mara teeloo jubilé ndam. jubilé wu man nga naan ma ndam yàllaa njëkk a jubilé ndam. yaa ngi ndamu ndamal Sénégal. yaa ngi jubilé parce que bu ñu lay dégg. Ah, bu ñu lay dégg kon nga bokk ci ñi nga xam ne. non bu ñu lay dégg torox tànge notaange. non non mais bu ñu lay dégg ay solution ay ay ak yow kon yow da ngaa bëgg non jubile mooy lan. mais bu ñu la egg nañ war a jublu ci ay. le soir du 25 février parce que euh, déjà depuis un moment yow dañuy dégg ci pale bi Ousmane Sonko ci pale bi. mooy fal kii falu de incha allahu rabbi te dama leen a waxoon ne leen président Ousmane Sonko ci kattanug yàlla suñ boroom yàlla li maye woon bu ko nanguwul incha allahu rabbi dina gouverner Basiru bu toogoon ci pale bi ku fa ne. koo xam ne yow big sax boo ko bindee Sonko Sonko Sonko la ko binduloo te Bassirou Diomaye Faye incha allahu rabbi du war président Ousmane Sonko. naka nga jàngat du ko war discours Ousmane bi. discours bi lenn laa ci njëkk a jàngat xam nga mooy lan. nit ku nite. nit ku dal nit ku xam fi mu jëm te sénégalais yi maa ngi leen di wax ne leen yàlla jox nañu nit ku yiw muy président Ousmane Sonko yàlla jox nañu nit ku gën. dama leen fee waxoon ay at ci ginnaaw dem leen seetaan ko na leen président Ousmane Sonko wàll yu la am ñu génn ma waa sëñ Mara lu muy wax ni ma na leen président Ousmane Sonko digg digg digg wàll yu ci jamono ji mooy président Ousmane Sonko am ñoo xam ne dañoo taxaw na ma waa sëñ Mara nag moom président waa yow nit ki xam lan mooy wàll yu nit ku baax. jéggi na loolu. président Ousmane Sonko yàlla da koo may lii Bachira may ko xubóol ba noppi dafa def ci moom këccu moo tax ñu bare koy topp di daw gisuñu ko une bi muy daw li ma la wax léegi ku ko ci topp ngiro ndax ndax le président dans la il est fort le président Ousmane Sonko il est fort dafa daw gaa yi ba romb leen sànni karawaas gaa yi taxaw naan anama fu mu jaar te li gën a jafe mooy ñoom dañuy xeex ak président Ousmane Sonko te président Ousmane Sonko du jëmm procès la. ci wàllu seet nga ne ko nuus. Mhm. jàpp ci kaso bi. levée de fonds yi di gën a yokk nga tëj ko tere ko wax discours yaa ngi doog a tàmbali épisode un génn na. ah, ah nga nga nga ne nga ne xaaral ma tas parti bi ex bi gën a am doole waa kon lii lu mu lii lu kenn xamul la lu kenn xamul nag danga ci maandu wala nga demee ci jamin woo xam ne mo nangum dogal. donc da nga jàpp ne Ousmane Sonko mooy diriger campagne bi même ci biir kaso bi mu nekk. Ousmane Sonko waxuma la ci biir kaso bi waaye Ousmane Sonko bu ñu xamoon mbiram dëgg dëgg ci lim doon man naa toog fii diriger élection yu xew biir Amérique nga naan ma se man yow fi nga koy teg dafa oyof ci man daal puisque euh, dafa ndaw nga baal ma puisque yow li ma xam ci li gis boo ko boo ko xamoon. bi nga xam ne président Ousmane Sonko li muy li muy li si ëpp na lii. mais usman Sonko ci biir kaso bi. nga naan ma ay ci biir bi nga am yaakaar ci ay ci ay élection ci camp. day gën a neex bi. prix dib lay doon rek président Ousmane Sonko ci kaso bi président Bassirou Diomaye Faye ci kaso bi loolu day gën a neex ñoom bu leen ñaan dara lu ñu war a def te def ko nag bu leen neexee ñu def ko waaye nit ñi bu ñu topp fii na Bassirou génn na nangam nit ñi sëddi dañoo sonn te incha allahu rabbi nañ leen takku ñu bañ kenn dàq fi ay élection maa ngi koy ñaan sénégalais yi nañ leen takku ñu bañ kenn dàq fi ay élection xanaa da nga gis lu mel noonu. ma ah man de xëy ma dama koy gis xëy ma gisuma ko waaye daal maa ngi ñaan yàlla yàlla buñ ko dàq. élection yi li ñuy ru yàlla bu kenn dàq élection waaye ñoom kay bu ñu bu ñu paree nañ sa gu bëri koo xam ne yow ngay tànkam takk ngay loxoom ah wërundu ko ndomb ba pay ni mu ñoom liñ bëgg da nga gis na da nga gis ne pare wuñ. non ku pare ku pare ci ñooñu. ñi ngeen war a songal la. ñu ñu songoon man xaw ma sax ñi ñu bëreel man mbër mi laa xam. ak ki war a jàgg ruur te dana leen daan ñoom ñëpp incha allahu rabbi kii moo jar a àndal waaye keneen koy wax man fi mu ne sa waay man. man confiance sëñ Mara. da nga da nga am confiance. danga nga naan c'est trop focus. Ah, man dama focus ba ëpp. puisque fi mu ne dara dafee euh, nga koy respecté pour nga mën ko daan. parce que itam euh, seen adversaire am na adversaire yoo xam ne it boo leen respecté doo leen daan de. Amadou Ba actuellement ah Modou Lo kuy bëre moom respecté doo ko daan de Amadou Ba actuellement boo ko bëggee daan da nga ñëw daal ci kawam de. du adversaire yëpp de laajal Balla Gaye da ngay ñëw attaqué daan de Modou Lo ñu ko respecté ñëpp du leen a daan. Amadou Ba mooy sa adversaire. actuellement non non Amadou yow da ngay. non actuellement mu ngi def. mu ngi def benn benn benn benn sortie boo xamante ni. man du ma booster bii